Mbaye Babacar Sy du ko présenter sama bopp parce que xam ko man man encadré na ma ma nekk en tant qu'élève bon sur le plan culturel kenn du la présenter parce que xam nañ la mais man dama gis ne culture dafa am importance trop ci nawetaan te dañ ko dañ ko négliger léegi lan ngay wax ci loolu. enfin violence bi mu amee ba léegi culturellement amatul si association yi ndax bu njëkk ba. dañ doon yàkkamtee football bu guddee ñu organiser maanaam lu ñuy wax fóoral maanaam koñ bi xumba man je me rappelle charme nawetaan xam nga lan la woon soo ma saan football ba noppi par exemple maa ngi rappelé benn année boo xam ne sama gars yi ñoo doon football man daaw ma football nag mais ñoo doon ànd ñu nañu gagné kusum final guddi gi xam nuñ def ngeen baal ma sax si wax ji war waruma ko wax suñuy gàll foofu lañ dëkkoon dañ naan jël suñu kii. dem sedd sen gel dem sedd suñu gel li fële te pourtant gaay nañ len ñu accueillir ñu vraiment ñu tok reetaan ñom aussi dañuy ñew aussi ñew di sedd gel fi suñu koñ donc amoon na ben brassage lu ko indoon mooy brassage culturel du ben c'était une famille une seule famille wa très bien mais loolu bu loolu dañé les violences am parce que culture amoon na importance ñu santé ba dañ ko teel xam dañ teeloon xam lan moy culture dañ ko teel xam heureusement man sax waruma wax lu bari ndax dama fekk sama ay professeurs yi nga xam ne ñoo ma jàngal muy Pape Ndiaye di Moussa Lo toujours dama koy wax sur le plan académique comme ni nga wax ma formé la lanu kii moom formé kële Moussa Lo moo ñu doon wax moom comme ni ñun ñun jàngal xamuñu woon dara mais li ñu nekk si xam-xam bi nekk si bu nekk si ñun ba ñuy jàngale moom moo ko def Moussa Lo dañuy ñëwee ñoon fu nekk lañ naan dugg di jàngale sur le plan culturel kii moo ñu jàngal Pape Ndiaye Pape Baba Ndiaye man mi actuellement Assane Thiam mi toogoon fii léegi sur le plan culturel maa jàngal moom tam mu pare am keneen ku mu jàngal noon la ba léegi ñu ngi si am na gars yu bari yi nga doon dégg yoo xam ne sur le dañ naan ñëw dañuy seet si Moussa amul ñu mu formé wul laa Pape Ndiaye amul ñu mu formé wul si yeneen ASC yi ba ñu yoree sanc ba man nag sëgg seen ñu ñëwaat ñëpp demoon nañu mais dañu bëgg a dekkaraat loolu moo tax ñu ñëwaat. dañu gis ne yéen sanc ba équipe yi gën a

mais ñun xëy na ñun tamit ñoo waroon former ay ñeneen ñeneen former très bien dañuy wax dëgg rek dañuy wax dëgg su ñun la quoi bu yàqoo rek su ñun la. maintenant léegi yow ci sa xalaat lan nga yaakaar mën nañ ko def pour reprendre. dañu ñëwaat luñu loolu ñu yàqoon loolu ñu bëgg a defaraat moo tax ñu ñëwaat. merci dañ ko bëgg a defaraat. kii sama mag la mais moom benn question rek laa koy laaj parce que su ma nee magoo rek damay fàttaliku final entre Santhiaba ak Déggo penalty boobu laay laajte parce que saa ma gisee. su su ma gisee rek penalty bi lay laajte qu'est-ce qui s'est réellement passé. waaw maa ngi lay gërëm di la sant euh, balaa may tontu sa sa laaj boobu dama la bëgg a xamal ne la ñun sant du football rek waaw parce que man man mi wax yoon nii ñi ma toogal nii dañuy dañu am solo ñi ma toogal nii d'abord ku si mel ni Pape Baba Ndiaye général encadré ma ñoom Moussa domaine culturel cours de Sénégal Ndiaye Seydou Ndoye sama entraîneur carré bi ñu jël bi ñu jël coupe carré moo ñu yore woon lu ne lañ def këram moom ñii moo tax euh, wax si ñoom dafay xaw a trop mais quand même ma koy sant yàlla parce que bu ñu demee ba àdduna dem ba ñuy toog di toog ak ñoom kooku sant yàlla la waaw loolu loolu yàlla defal nañu loolu. ah final boobu nag euh, équipe boobu équipe bu réer ñu amoon Santhiaba boobu sax euh, bi ñuy joué final boobu ñu ngi xalaat ki ñu war a dajal ay temps jamono ñoom walidaan équipe yu mag yooyu la ñu doon xalaat. man daal bal bi téye naa bal bi góor bi di ma ko laaj ciment ma avancé avancé ma ciment ciment di ma laaj ma dóor man daal dóor naa bi ma dóoree ba daanu li may li may fàttaliku boobu ndem si yàlla Assane Diop ñëw ni ma yëkkati quoi nan moom ay ma ko ko waay jóg pour lan mu ne ma yow nga taal kër gi ba pare naan dugal ni kii ma ne ko ban kër laa taal mu ne dugal dugal dugal nga kon sunu dugal nga bal si biir kaay ma ne ko dugal non bal bi dugaluma ko mu ne ma yow tal nga caay jugal ñu dem way noonu nag après nag si laa yeewu nag affaire bi jaaxal ma quoi ma dem foog ma égaliser yi ma ne comme maa kon sunu sunu kan ma dem égaliser man naa ba jàkkaarloo góor dool ba bal bi dugul muy match bu métti ñu nax déggoo léegi léegi loolu damay indi ma laajte ak mystique est-ce am na ah waaw tamit tamit am la mystique mystique mais ñun ay Afrique mais mystique kooku man du ma ko di man parce que man pour man bal bi ma dóor mi ngi génn si biti mais bu ma jeg-jegi daanu ñu ne ma dugal nga contre son camp mais mais mystique lu am la te mystique boobu jamono yooyu dañu jekko woon ñun jamono yooyu ñun ñun ñun xa boobu ay ay kii la ñu ñu ngi taw suñu diggu doole mun football boobu ñun ngan di équipe la ñu yoroon waa waaw ndekete ñun li ñu def yëpp lu ñu def ñi ñu war a football xam nañ ko lépp lu ñu def ñoom xam nañ ko waaw ñu dem football yi gars yi dugal ñu dugal war a égaliser mënuñu égaliser mais ku mais loolu euh, musique musique loolu am la. mais loolu loolu dama dañuy def remarque man dem naa laajte tuuti équipe yi wër Santhiaba buñ ne dañu jamono ñu toll nii buñ ne dañuy am Santhiaba ñëpp dañuy tiit ne jàpp Santhiaba c'est une équipe très très mystique est-ce que du loolu fa ngeen jógee. Ah, yeew loolu loo nga dëgg loolu fañ jógee fa lañ jógee yeew pour dire que ñun ah ñun tamit euh, ñun ay lébu lañu aussi. deug deug do ay doomu lewu xam ciosan lewu gis nga biñu gaay gagné man sam bop wat na ne len ñi dot ñi gagné tu mu fex ma ngi dundu xam nga ci la jógee dem compagnie sucrière ñu dem ñu wara footballat fubalaat def naa boobu ba léegi gañewu ñu dé ta fayu nañu ñun kuñu kuñu kuñu def la dañuy fayu mo taxone señ ba amoon mystique bu graw waaw lolou si nga ci si jeune final boobu bañ fa jógee lañuy xam lan moy mystique sa lañuy gaay ragalé nak mais malheureusement ah légui mi ngi yakku parce que xale yi ñun li ñu bàyyil xale yi man moo ma ñun yàqu ñu de xale yi ñoo yàq ñi ñuy bàyyil ñoo yàq parce que dañ leen lu am solo waaw fa ñu fa la ñu jógee ñun jël jël coupe ba ñu jël coupe man maanaam président en 2006 nañ fi coupe ah leneen ak leneen si bëri mais xale yi ñoo yàq liñ fi bàyyi mais ñun bàyyi woon nañ fi lu am solo. Badou ah. Bas nee na bëgg na àddu ci affaire bi. Ah. waaw balaa Bas di ma gis nga final boobu cinq Mawar bi muy dugal ay jot mais Bas dafa match dafa dugg rek timis jot xamul dama li instant bi lan la ba bëgg a Euh, waaw euh, man damay revenir ci euh, ci ci. revenir aat ci les grands joueurs ñi nga xam ne ñoo jaar parce que la ma bëggoon laaj les grands joueurs. voilà ak les l'une des grandes équipes c'est-à-dire yéen si seen ban équipe Santhiaba moo l'une des grandes équipes par yi traversé. waaw traversé kii bi. parce que en fait pour revenir sur les grands joueurs boo sur ñun Souleymane Camara jaar na Santhiaba fi le football kat donc kon kooku.

parce que 2000 Santhiaba boo xoolee Médina moo équipe bi njëkk a jël départemental fii Médina en 2015 Santhiaba moo ba ba actuellement sax Médina équipe Médina yëpp ñun ñoo fi jël départemental donc final boobu moo ñu yee ba négligé tuñu dara parce que ñun dañu gëmoon football mënoon yàlla dimbali woon nañu ñu mënoon nañ ko gëmoon nañ ko mais xonjam sax dañ daan ñëw euh, bu ñu daan ñëw euh, euh, nu mu tudd AG wu Santhiaba dañ si daan werante da nga daan gis ay ñoo xam ne dañ daan wax pour am ñoo xam ne dañ daan wax contre yoo wax naan non non non li ngeen nar a xonjamee jox leen ko joueurs yi comme prime ñii naan non non non il faut ngeen xonjam parce que yéen yéen a ngi tere ñuy xonjam booy yi te yéen ku si dem dem si yàlla ibulaay da ko daan wax naan dirigeant yéen ñuy tere ñuy xonjam koo si dem këram taatu ndaayaa ngi ci ci ci rondalam moom loolu la daan wax quoi donc ñun yooyu yëpp fekk ñu si mais nag après la ñuy mais aussi tamit toujours dañuy boole ñun football parce que ñii ngi naan équipe bu 96 bi moo gën a baax ñii di wax équipe bu 99 ñii naan 2015 euh, donc naan dafa am werante. donc y' a trois grandes équipes mais mais man mais man je dis l' équipe de 96 man en tant que entraîneur. parce que équipe boobu moo mooy raafale taabal yëpp meilleur attaque meilleur joueur tournoi ba pare encaisse benn biir la ñu encaissé donc équipe boobu mooy équipe bi mën ci équipe bu Santiago yi. donc c' est l' équipe l' équipe 96. waaw équipe bobu man fekk na sax bobu lay nek entraîneur joueur parce que bobu man fekk na ma décrocher man décrocher na presque 87 après dem du football championnat donc bima ñëwaaté 94 yoro équipe bi ñu dem demi finale lu gagné ñu 95 ñu ñëw finale contre kusum mu gagné ñu 96 gars yi na ma eh yow ya manké ci équipe bi fokk nga jappalé bon yi da ngay nek entraîneur nek joueur si laa ñëw nek entraîneur joueur. donc suñu équipe boobu moom vraiment euh, macha allah waaw c'était c'était l'une des meilleures équipes waaw may revenir sama volet culturel parce que ñun <laughs> culture dafa mel ni que ñun ñooy parents pauvres mbay dafa wax euh, léegi seen faute ñoom mais moi je crois que yëpp ci gestion la dama doon waxtaan benn bés ak Moussa Lo mu ne bi ñu démarré cours de vacances yi ci cours de vacances yi ci la ñu amoon ay fonds am na bés sportif yi dañu ñëw ne dañu bëgg fonds yooyu nga xam ni cours de vacances yi culturels yi ñoo ko yor pour ñu jox ko sportif yi mu lànk ba bañ et dama ko reporté tamit Baba Ndiaye parce que nekkoon na conseil culturel gouverneur ma ko daan wax Mamadou joob ba mu nekkee maire ba ci ñoom ba Fall mënuma admettre ngay jël ay subvention di ko joxe wala ay mayo ay ballon ak yooyu te duñu mës a xalaat ni vole culturel bi ñoo ñu war nañ leen di subventionné ASC bu nekk ñaat ñaata la ñu jël di ko def ci ay xon Si nous avons un cinquième ou un tiers de ñu doon def ci xon simuler nga des activités culturelles mais comme activités culturelles yi dina a am grande dimension en as yow yi am responsabilité parce que tu as été conseiller culturel hein, dans l'administration voilà man je compléter rek côté côté sport compléter parce que penc bi ñu toog nii fii la mbapat daan am vers les années 50, 60 euh, ñi daan jige àll di bu ñuy di ñëw si dëkk bi comme que borom un creuset culturel très fort de la lutte bon euh, euh, aussi amoon nañ benn gaal fii d'ailleurs ça boo demee si ginnaaw fële ginnaaw jàkk ji fa la gaal gi daan nekk man seet gis na ñu fii ñu fi juddoo ñëpp gis gi daan compétition quoi fédération Regat bi donc loolu ñu wax ko tamit ci ci richesse wu terroir bi maintenant bi ñu demee nag ba ba Mbapat xaw fi jugee ASC bi reprendre na Mbapat vers les années 70 80 reprendre na Mbapat carrément donc ASC bi loolu tamit mën nga dugal si biir euh, euh, gafakaam bilan culturel bi. beneen bi bon ñun nak bon man je suis animateur culturel yàlla dimbali ma ma nekk responsable nawetaan ASC bi ba nga xam ne ñun dañu xaw a sax le théâtre ba mu génnaat bu gënaat am évidence quoi à côté du du sport. maintenant euh, nawetaan am na jamono bu joxe théâtre coupe bi dañuy joxe coupe bu théâtre autant que la coupe du football man leen non waa théâtre soxla ñu coupe li ñu soxla mooy ay jëmbe ay éléments de décor ay ay ay instruments fallait lañ commencer d'ailleurs nawetaan bàyyi di joxe coupe di joxe ay trophées à la place des des des des coupes quoi yi ñu daan joxe sport donc loolu dafa naan ASC war na ko wax benen bi moy produire nañ fi ñu bari hein autant Bas wax na léegi les sportifs qu'on a produit mais au plan culturel ku melni Cheikh Tidiane Diop ku wax Cheikh Tidiane Diop wax théâtre Sénégal tout le théâtre réalité là bi am dans les télé là c'est né de là-bas ku melni ni Mour Ndiaye mi cour de vacances sànq ba la ñeu def théâtre ba nek fi une grande star donc bari na bari na quoi ñom Ibou Laye ñoom Ibou Laye ñoom euh, mën nga ma rappeler hein gars il faut nga wax leen.

donc loolu motax ñu mëna tew ni vraiment voilà loolu am solo dafa rafet ci gisine voilà ban ban conseil ngay wax pour perspective yi nga xam mom la ñun ñi war jëm sur le nawetan wa man fofu la sa wax ci perspective yi quoi mais mais damay wax ni ñom bass dama ci wax touti man pour man la plus charmante équipe de Santhiaba dans l'histoire de Santhiaba seen équipe cadette la woon parce que seigneur yi seigneur yi da ñëw di seetaan mag ñi seetaan ci match yi. daaw ñu samac senior yi parce que c'est une équipe d'espoir boo xam ne yaakaaroon nañu ci dara ba ñu am résultat waaw 79 waaw ñoom ba ñoom Bas Magóor bon am na xam nga dama doon jël dama jëloon ay booy yu jóge woon HLM parce que góor bi fa la nekkoon Jano ainsi de suite dama jëloon ay booy ak Cheikh Ba dama dama mixé woon man bi ma yoxee bi ma yoree sànc ba bi ma yoree sànc ba damay mixé parce que dama dëkk Angle Mousse mais bi ma yoree Angle Mousse dama doon mixé di jël fi ay booy den yóbbu waaw xam nga daaw ji peut être waaw waaw parce que non dama jëloon yoon ASC HLM mais après sama doom moo ko jël ba daaw jaa fekk moom mu jël premier coupe Angle Mousse ak équipe bi daaw après nag ils n'ont plus de terrain ils ont arrêté parce que xaalis bi ñu defoon dafa bëri mais ñun xëy na Covid bi moo ñu xaw freiné mais le 19 ou le 18 avril non 18 euh, euh, avril lañ ko préwoon la ñu bëggoon def manifestation bu mag pour def la mutation parce que nous bi ñun il faut que nous voyions wanaat nit ñi voie parce qu'on était dans les ASC association sportive culturelle alors nous, nous nag dañ le volet économique dans les projets de moment avons wax à association sportive et culturelle et économique parce que nous avons bëggoon emploi, emploi volet économique emploi parce que il faut ñu changer type nawetaan bi ci loolu moo tax suñu perspective nous allons mettre en place une académie mais pas n'importe quelle académie Ben académie boo xam day une énormité dinañ am siège dinañ am ay auto am tout ce qu'il y a comme une, école moderne nga xam ne une nekk accompagner les gens vont jouer le navetan, mais tamit ñun dans la formation parce que l'uniforme, ñuy former di ko perte dafa alors donc il faut que nous liguions ci volet boobu mën a jël donc euh, c'est un projet on a dit que d'ailleurs les entraînements ñu jox le on va démarrer le 2 novembre Inch'Allah, diggante on va travailler pour démarrer les entraînements à partir du 2 novembre pour mettre en place l'équipe donc du obstacle nawetaan parce que nawetaan je pense que fii 3 ans d'homme am donc euh, doon nañu sax Khalat, ci réunion yooyu ne dañuy def dembe. démb delluwaat ci école di fa jouer ci yeneen terrain yi jël leen il club yi nga club pour xale yi am activité waaw une ah, waaw attractivité waaw donc loolu daal sax ñu Khalat doon xalaat ci loolu très bien C'est lañ loolu que fi on avait trois jours C'est dans les programmes je pense que su pareil, bas dina leen ko jox trois jours jël les terrains en location Il y a trois jours ñu dem def préparation parce que réalité le terrain commencer à manquer un problème dafa un problème de terrain mais comme que y' a fan 3C bon c'est des terrains de 8-8 hein, comme quand on travaille sur la formation, même si on a un terrain de 7, hein, on peut faire des plateaux de travail. Parce que travailler. Ah. Est-ce que vous avez un projet euh, C'est colossal comme projet. Hmm. Mais est-ce que qu'il y a un moyen ou cette politique Waouh, je sais que je suis un défi. Je suis un défi. Je suis un défi. Le meilleur défi, j'étais le plus jeune président d'une commission sportive au Girafe. dama ko bàyyi dem HLM su ma ñoom grand frère mere ma ñëpp mere ma maa ngi leen défi laay dem dama bëgg a jëli HLM boobu mu ngi ne quatrième division dinaa ko yéegal jaa fekk dem naax moom ba yóbbu leen ñu dem coupe d' afrique ñëm jël coupe du sénégal après si laa arrêté bi ma ñoom euh, sama doom yi seetsee ñoom ba ne ma dama bëgg ñu travailler maa leen au moins li ma desee si football danaa ko verser ci santé ba par expérience parfois donc man bëgguma di démarrer dara di démarrer ci xaalis man man wax ko nee naa principe man bëgguma démarrer mu sama projet ne sama xaalis a ngi nii xaalis man maa ko uti on va projet financier moom laa ñu doon on va se développer avec ñu dem mais incha allah on va parce que xaalis noonu la utee bi may tabax terrain HLM bële stade bi dem naa ci Mamadou Diop mu ne ma bi rafet na mais aw ma xaalis ma ne ko ñun ñu sa xaalis mu ne ma ah bon ma ne a ah ngeen ko def ma ne ko ko wax dama bëgg nag xale yi ñu comprendre loolu nit ki mun nga démarrer dara comme li ngay def nii li ngeen ci démarrer su fekkee tey da ngeen di xaar toujours xaalis doo leen développé donc vous pouvez développer sur ça parce que man même bi ngeen indee léegi fii ma toog nii ça ma donne une inspiration parce que man ñii bi ñuy démarrer maa leen nañuy def HLM TV naka tuuti Santhiaba euh, TV ah, parce que c'est un projet qui me tient à cœur mais tey yéen ñii Médina Dak bii dinañu am collaboration boo xam ne loolu ñu doon def yéen lañ koy versé je pense que c'est des choses yo xamné ne il faut pas que nga tok dans la lettre nga né damay xaar maire bi may ma wala non non non moi je fonctionne pas comme ça man liñuy out, ut am et on va le faire on va vous inviter parce qu'on va le faire à terre. bi faut vous présenter. foofu en tout cas nous ne vous remercierons jamais assez parce que ça a été très très bénéfique Content, man dama contentement mm-hmm. je ne peux que prier pour vous Il nga a vraiment il pratiquement yéen ay magou actuellement yéné magu quartier bi ci ngeen bokk équipe bi ci ngeen bokk yén yéné mag yi yalla encore euh, dolli dolli dolli euh, wér dolli goudou fan. merci en tout cas. merci beaucoup maintenant remercier en même temps remercier. C'est uh-huh. équipe bi nga andal parce que par leur sagesse ils ne sont pas dérangeants ils ont travaillé en professionnel. alors selon les ko def yàlla na yàlla yokk sen seen xalaat ak fi ngeen c'est bon de de les remercier quand même euh, parce que nous avons loo xam ne nit mu mu marqué la xam nga sagesse dafa baax tey dafa baax dañu wax ni la la meilleure langue au monde hein ñoo ne la langue muette parce que ki waxul dara moom il comprend toutes les langues. y a quelqu'un qui disait que dit rien dit dit quelque chose. voilà moom la lay wax. la meilleure langue au dire quelque chose ñu la meilleure langue au monde. ci boo xam ne moom la am xool seen bi ak ñuy liggéey ils ont assez de professionnels dañ def charme ci man donc man li ma toog yëpp ni ñuy liggéey moo tax ma xalaat ma ne man de maa ngi doon wax. Ablaye avons créé la TV mais bi nous est-ce que je veux dire à Ablaye de de s'approcher de ces gens-là Nous liguer dans ce projet-là nous confier les opportunités qu'il faut pour nous tout te nitu en tout cas encore une fois on ne vous aimerait jamais assez. merci merci vraiment merci.